falee golo ci palais bi. ñu wutal ko garabu mango ak garab. tey ki ko traité golo mooy jiite sa baay mooy jiite sa ndey mooy jiite sa maam mooy jiite sa umpaañ képp koo xamante yow da nga ko njaboote moom moo lay jiite. gis nga àdduna du nii àdduna du lii kese ñun xam nga lan la xaar bés bu rafet te bés bu rafet ñëw na te ñu nax barki Serigne Touba preuve imbécile. yow DJ xaram. yow xanaa sa papa mooy golo bi yow ki ngay wax golo nii tey mooy kat sa ndey ji de sa papa ak sa yaay yéen ay doomu xaraam ngeen yéen gars yi dañ jox ngeen i lekk rek ngeen di kat sa yeen yaay di wax yéen ay doomu xaraam ngeen ni ngeen ni di lekk nii xaalis bi ngeen yor jëluñu lafal ndeyam yow kañ nga feere say milliards sa milliards yooyu anoñu cottu ndayam yoroo leen ko yéen ay doomu xaraam ngeen yéen ku leen topp nday si dëkk bi nii day nday jeex de jeex na nday tax yéen li ngeen doon def xaalis yooyu dina katt ndayam génn man ku may si dajeel xaalis bi nga nga lekk di ko kat sa nday génne. di dem li may wax ak yow bëriwul yow kañ nga feete nday say milliards est-ce que sénégalais mën na am fii jafe-jafe wala mu feebar ah wala mu nekk si ay tolof tolof ba a dimbali ko tey nga taxaw naan da ngay xasul président. yaa gën a kat sa yow kan moo sa yaay ak xamoo nday sa yaay xamoo sa papa di bisal la fal nday Boubacar Diallo yow am nga loo doy di dégal sa nday mu ngi ñëw yow yaa ngi nekk Pël Fuuta nekk étranger sa nday fi nga bokk sa nday yow ñi ñuy génnee si ngay bokk si ngay nday bokk Boubacar Diallo yow sénégalais bu sant Diallo boo gis amul nday fenn bisal la fal nday xam nga Pël Fuuta la di wax si suñu réew Sénégal moo nekkoon di doon mooy xamal leen neex ngeen def dinañ kat sa nday nga dem Guinée waaw ndax Sénégal moom yàqante bi di ngeen ko bàyyi bu soobee yàlla ak waxante ku ñaaw ak xeeblu nit di ngeen ko bàyyi gouvernement bu bees bii léppay changé ok léppay changé ñoo xóor yi dëmm yi ñëppay réglé kenn du lekk sa morom de te xam ne gaal gi kenn du ko joow di bàyyi sa morom ñëppay joowandoo vraiment di jëbëb su yónnee nañ ma sa venn vidéo kaa jot sa lu guddi yow bu ma lay wax damay jug toog do ba tëddoon sama lal mais damay jug toog yow di jëbuus yow dégg naa la nga ne président tey ngay enquête sax ba daw boo yëgoon doo dugg ci patriote yi dama ne xam nga kan mooy golo sa ndey mooy golo sa baay mooy golo sa jabar mooy golo say doom ñooy golo sa rakk yaay mooy golo sa maam mooy golo sa maamaati maam mooy golo sa bàjjen mooy golo sa rakk papa mooy golo sa nijaay mooy golo yow doon nga teg ci ngay doon golo bu mag bi senegaal ba mu daj golo yi ci réew mi yépp àdduna monde entier yaay golo bu mag bi nga mel ne doomu dëmm ak doomi vampe damay ñepp soxoon dafa guddi. ba mu yor xaalisam ba mu ubbee teleem ba mu xomar yoon ba mu yor Boubacar Diallo yaa yaay commencé bañ Ousmane Sonko parce que bu yéegee di nga kattan wax xaalis bi nga ubbee sa télé boobu foofu ban lobby moo la jox yow. parce que ñu ci kaw bi fii nii impôt banque boo ko dugalee sax plus de loo xamante ne moom nga déclaré ci say revenu fiscal ak yooyu banque bi ko jëlee te loolu moo tax ñoom ñëpp ñuy xeex Ousmane Sonko bu moom kattan ndeyam wax seen xaalis mu jugee. té bu Diallo am amna benn magal tuba bo xamante ne man ak xale jigéen yooyu ñoo moom ñu nga auto bu ko ñu ci ay 4 4 temps yaa ngi yor X6 bu rouge bi X6 bu xonku bobu rouge bo do bobu yow rek ya ko yoroon Dakar yaa umu provocation yeen dong yeen ko doon daw Dakar yow ak provocation yeen rek yeen a yoroon X6 bu xonku rouge bo do yeen yow la wa yeen ñaar la wa ñu dugal ñu ci auto yi yóbbu ñu Touba yóbbu ñu jëkkal ko xam ne la sant waxuma la waxuma la jaay de Mbàkke kër Mbàkke Mbàkke la ñu dal ña fa daloon ñëpp ay moodu moodu lañ ñii kaaw lañ jóge états France ñii Espagne wóor ma yàlla ah jiji li may wax ni bu ma fene yàlla naa bu ma génne yàlla naa ma ut mbëgg màggal moo ko jëlewul cinq ma après boo demee Dakar ci la ci affaire yi invitation ree rek laalante gi fii nag dem génn yooyu biir Touba boo xamul cinq millions moom ma dama ne cinq millions moo ci dee te maa ci gënoon ñàkk loolu la Boubacar Diallo di liggéey Sénégal Boubacar Diallo bàyyi Sonko dégg nga bu ñu waxaat ci Sonko namu naa la na nga kat sa nday noppi bala ñuy loolu li ma war a la damay avancer rek